dakaar ba social ànd taxaw ñu wérét di euh, ak ñoom sëñ Jili Njaay ak sëñ Mamoor sëñ Xaadim Saar soxna sungum borom daaru soxna Lima Baye Saliou sama gars yi nga xam ne kenn mënu leen ak Dakar ba social bu Amérique ak waa Hello ñoom soxna Ndey Taal jiite ko di ci liggéey liggéey bu am solo ñoom tam ak soxna Awa Top Ndey Solo madame Coulibaly macha allah ak waa euh, social bi nga xam ne ñoo nekk fee ci Mauritanie ca Nouakchott soxna Salimata Kay ne fa ak ñi bokkal liggéey bi yëpp di nuyu waa Nouakchott ak waa Mauritanie. di gërëm suma rakk Mouhamed Amar tey ñu ñëwaat ci beneen kaa kaa boo xam ne jëloon naa fi benn cas bu tudd bu awasila buñ ko jëloon euh, te ban plante jàppale woon ko Youssou Ndour joxoon ko fi 3 millions ba mu opéré ba wér ba macha allah ñuy bàyyile ma woon ko ba ma dem mayee ko mais ki ko indi woon yaayam moom moo feebar moo feebar euh, tam amee bu waatar euh, doon na ma woo ma koy xaarloo nag parce que li tax ma ko doon xaarloo mooy balaa ngaa jëli borom baaraam bu dagg. jëli borom tànk bu dagg parce que ñu su liggéey noonu la dañuy xool cas yi gën a urgent cas gën a metti ñu jël ko def ñu mën leen a xaarloo donte tabat yëpp dafa metti mais itam dafa am yoo xam itam c'est différent tuuti moo tax koy xaarloo ba kun jobagul ci yow nga xam ni loolu moo tax ñu xaarloo la parce que tam cas yi dafay toll foo xam ne jalis buñ daanoo sa kaw ak cancer yi mënoo bàyyi cas yooyu di jëli yeneen kaa moo la waral loolu mais actuellement dafay subir ay douleur ak ay problèmes yoo xam ne commencé na augmenter ba kaw ko jaaxal ñu koy def comme ni ñu ko defee woon rek di sàkku ndimbal bu jóge ci yéen ci moom ma laaj ko lii kañ la ak nan la Coura maa ngi fi. Euh, la dal lan la. kii boîte moom daal. depuis kañ am na trois ans. kon mi ngi fi ñëw ci kaw aw fekkoon na mu dal. waaw mu dal bu yàgg sax. léegi dem ko hôpital. waaw dem naa hôpital mais ay traitement lañ ma laaj mhm. parce que am na analyse ak écho bu ñu ma bindaloon léegi am na deux ans defuma ko. Eh, loolu tamit ba tey boite bi dama sonnal Fadel danaa sama xol bi dafay métti wala sama côté bii nii su ma naanee ndox bu seddu day metti man trop te instant yi mënuma dem hôpital te def ma sama analyse wala sama écho loolu moo tax. léegi euh, nan ngay dundee ak feebar parce que lan lan la wax parce que dafa la tere lekk wala dafa la tere naan wala nan lay mel ak parce que gis naa ni dafa la xaw a jeexal sax aussi. waaw mm-hmm. dama sonn trop Fadel parce que sax damay dem mooy métti. masataa ngi nii ndox sa moo ko naan sama sama pied day metti waaw après sonal na ma trop a dem na ma trop waaw ku ma dimbal sa dimbal te yàlla a dem. lan ngay wax bonne volonté yi lay seetaan ñu mën laa jàppale parce que nekkul lu ñuy dañ koy traité. Mhm. li ñu la parce que quand école kii hôpital Camp Thiaroye bi laa demoon actuellement lañ ma laaj après dafa seet trop a te man aw ma xaalis ku amul loo lekk xanaa kay doo am loo fa jox dem. bilaahi après dama métti bi sax mënu maa nelaw léegi ay quatre heures du ma door a mën nelaw métti na ci man trop del ay garab sax mënu ma koo ndax tey jii balaa ngay jënd garab ngay jox say doom lekk boo amul loo lekk noo jëndee garab del ah na trop del bilaahi na ñoom trop del woon na yàlla métti na. mais dafay métti c'est parce que boiteur moo demee noonu mais mais kañ nga sentir ne mi ngi lay commencé sonal. boobu yàgg na de mooy bi ma feelee sama doom bu góor bi la ma arrivé parce que bu may commencé ay biir bu daw la ma commencé un an de la céphalène mënu ma lekk dara parce que nu mu commencé ku ñuy wax say di dem si yàlla kooku moo njëkkoon dugg suñu koñ dimbali ma moo commencé def sama traitement léegi fa dama dem ba amatuma xaalis sama jëkkër ñu dafa amul xaalis ma fajee Fadel loolu rek moo tax met na ci man trop Fadel. ban hôpital ngay traité ah, mooy kan caaroñ bu mag bi. kaa caaroy bu mag bi la métti na euh, trop sa parce que wax na dëgg boo xëyee amoo loo lekk amoo loo naan boo ci boolee bëgg faju dafay xaw a compliqué te hôpital moom ku ne xam ne la fa nekk boo fa ñëwee li ñu njëkk def mooy laaj la xaalis bu fekkee nag yow bi ngay xëyee sa kër yoroo sax loo jox say doom day compliqué mais ñu ngi ciy tàllal loxo jaamu yàlla yëpp yéen ñi jàppale woon awasila ba mu mën a def opération bi yéen ñi mën a jàppale woon awasila ba mu dellu ci wér état de santé bu baax ba mën a toog ci këram di sëy ñu ngi li leen ci tàllal loxo moom mooy waajuram moo ki indiwoon fii laa toogoon ak moom ci kaw doon ko ñaanal ndimbal tey nag gis nga li may wax rek natt moom bu dee ñëw dee ñëw aaw aw si la réussir na su borom def na ci macha allah wér na waaye tey moom la yëf yi daan ci kawam muy ay problème yoo xam ne bu xëyee pour mu teg cin sax c'est tout un problème xëyee pour mu lekk c'est tout ton problème loolu dundee feebar bi dafa est que euh, li sànq wax nga ko sànq boo xëyee loo lekk ak loo naan da lay jaaxal rawatina fekk nga bëgg cee dolli feebar bi aussi. waaw dafa metti trop woon na yàlla fa metti na ay kayit la mënumaa def analyse mënumaa def rajo te dama dem hôpital dina wax sama feebar ñu ne daggal ticket ba pare an sa analyse ak sa ba daan sama bu njëpp daan fa dem ma nii du bàyyi ma fenn fa dem metti na ci trop. moo tax boo dee yàlla moo tiir boo dee sama mbokk ba jumaa dimbali dañoo am bu def fa dee wala metti ci man fa dee yàlla xam na ndam metti na ci moom wax parce que nit ku ne na jàpp ni eh, ku sañoon doo laaj dangay joxe kon nit bu demee bay bay bay tuur xéewal rek c'est parce que dafa dafa jaaxle ba jaaxle te toujours li ma lay wax rek mooy que ñi feebar ne ci hôpital yi li feebar ne ci kër yi ko ëpp fuuf te ñi ngi fi du jeex euh, li may jot ci ay coup de fil par jour si sama téléphone xaw ma nu mu toll te ñëpp danoo jaaxle ñëpp danoo feebar toujours même wax bi boo feebaree yoroo xaalis ñema dem hôpital boo feebaree yoroo xaalis da nga naan naa obligé toog ci biir kër gi dafay metti te loolu. bu dee cent personnes quatre-vingt-dix yëpp loolu la ñuy dund ci biir kër yi di souffrir ak seeni problème moo tax ku yàlla jox fukk de la séddaloo nanu bàyyi xel ñi néew doole nanu bàyyi xel ñi nga xam ne tey jii bu nu xëyee lekk ak naan da leen di të te kenn ku ne bu fekkoon dimbali na ko mën a dimbali coono mën naa bañ a bari nanu dimbalante sunu biir nanu jàppalante àdduna dara jeexul kuy ñëw doo indi booy dem doo yóbbu ku xam loolu di nga profité ci la la sunu borom jox nga jaamu ci yàlla. def ci lu baax te xam ne xamoo kañ la ak nan la ndax ñi te ngi mbébét lu jëm déwén te fekk percal ba koy war a su muur ña ca marché ba ñu koy jaay te loolu lépp suñu borom dëgg koy nëbb kon nanu profité ji def lu baax te xam ne aduna yàggul aduna yàggul ah, ah, ah, kon li may waxaat mooy que ni est que yaa ngi jël ay garab. bari gën ñaa jël ay garab kenn masata mi moo may sax lu ma jëndee garab mais garab dafa dem ba dafa jeex fa del pour ma am garab sa problème ci man wóor na yàlla. moo demee dañ ma ne ndax yaa ngi naan say garab may la déedéet parce que ñaa naan samay garab woon na yàlla tey su ma naanee naatu ay un mois yoo xam du naan sama garab yàlla xam ne na wóor na yàlla peut-être garab may naa sax du ma ko am tey su tey ku ma may tey mille garab ma jox ko samay dama peut-être parce que dooyu ay xale yu ndaw nga toog di leen seetaan peut-être fa métti trop sama doom ay xale ndaw leen màgguñu laay na ci man trop. ngay waxaat ñi lay seetaan ñu mën laa dimbale ndax fa coono yem fa nga tàmbalee man ku ma dimbali ngir yàlla pour ma faju xew ma dara wax loo ma waa may ma faju faju rek laa bëgg a Fadel faju rek Fadel sama mag tey bu taxawee dañuy ne maa ko mag Fadel dama dem ba su may dox sax damay miir yàlla xam na ko damay dox sama dem day lox du ma mën dara Fadel ku ma dimbali ngir yàlla te yàlla tax ma faju loolu rek laa bëgg a jërëjëf taxawaayu Dakar Buzz ci yow parce que euh, bi nga fi indee kaaw awa euh, euh, jaaxle woon nga yàlla faj ko yàlla def sutura tey kon mën nañ amaat yaakaar ca kaa bi tey yàlla def sutura mais taxawaayu Dakar Buzz ci yow. ah dama ma jaaxle ci abu aadat damaa ñëw ñu dimbali ma rek te yàlla tax lu ma waay may ma téye ko jox ba dox ba awu wér ba awum am jëkkër tey fadeel dama lay ñaanal jàmm yàlla may leen jàmm guddal seen fan. bi ci des yàlla na barkeel yu xeer bu bari bari Fadel jërëjëf waaw moom may dama faju ku ko may mu faju la bëgg mooy yaay Awa Sylla moo ko indi woon fii ñu ngi tàllal loxo jaamu yàlla yëpp daal lu ci waaye mën ci lu baax nga def ko ci ku ko bëgg jàppale tam numéro mi ngi ci baaru écran bi loo fa yéene rek boo ko yónnee man cee jël man cee teg def traitement bi parce que ñëwewul dem hôpital parce que yorut lu mu fa yóbbu te xam na la koy xaar yàlla ñëpp am jàmm ci micro bi mi ngeen tàmm di gis la cadre bi Omar laa ci àndal jërë ngeen jëf yàlla ñëpp am jàmm.